info actualité sport politique buzz information en temps réel sur Info 2S TV abonnez-vous. man maa ngi door xam lu tax ñu coupé signal Walfadjri parce que Walfadjri askan bi lañ fi nekk parce que am na télé nga xamante ni fi ak site yu matin midi soir dañuy fen di carte di sos pour rek tilimal li nga xamante ne mooy Ousmane Sonko te loolu ñun duñ ko nangu. waa Leral TV génne nañ benn post nee ki nga ne mooy Pierre Atépa bu jaar bi gisante nag Macky Sall bi ñu gisantee Atépa dafa ne Macky Sall am na benn message boo xamante ne dama la koy transmettre Ousmane Sonko moo ko yónnee ci la Macky Sall ne ko non non du ma bu wax bëgg ma ñu wax ci wax da yenn maanaam bàyyi leen ak sos bi ngeen di nekkee ak fen yi ngeen di nekkee amul leen benn njëriñ da ngeen di xëy si suba ba ngoon di yàq deru ne mooy deru Ousmane Sonko trop c'est trop xanaa ngeen ruus sax wax da yéen maanaam ngeen xam ne Ousmane Sonko moom mu mujjee trahir askanu Sénégal te au moment où je vous parle Macky Sall moo bëgg a wax ak Ousmane Sonko mais Ousmane Sonko amul benn intérêt di wax ak Macky Sall kon boobu bàyyi leen quartier yi fen yi ak sos yi ngeen di def wasalaam. info actualité sport politique buzz information en temps réel sur Info 2S TV abonnez-vous.